bàyyi laay dafa woote mais woote bi mu woote wooteelul boppam dafa wooteel yàlla dafa ni ajibu daa yàlla yaa mahsar al insi wal jinni mu ni inni rasulillah ilaykum bàyyi laay dane du ma beneen yonent maay muhammadu rasulullahi mu ne maay naar ba weexoon ca makka di doomi abdullahi ak aminata yàlla dellu si ma ma ñëw ñuul kuk di doomi alasaana kummandooy mu ne muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba mu simbi woon peeru dàllam mu ne borom daa dellu si sol peer ba mu jot ko sëkk mu toppaat tànk ya hmm. mu ne xoolal ci sama wax ak sama jëf bu bu wuutee ak Muhammadu Rasulullah du ma moom hmm. ndax man maay imaamul mahdiyu bi leen yàlla doon wax ci mujjug jamono mu war a ñëw ànd ak im ibnu Maryam hmm. ba nga xam ne dañ koo jiiñoon ni yàlla nga ak doomi yàlla nga ndekati Isaa doomi Muhammadu Rasulullah da doomi Seydina Limaamu bàyyi laay loolu la wax kon képp ku gëm Seydina Limaamu te muy dëgg ci yow da ngay dugg àjjana da ngay dugale àjjana bàyyi laay dafa ni àjjana ju ndey newul bàyyi newul xarit nekku fa lu ko nit di doye eh? hmm. adeng yalla pour nga dug aljana yomb na topal li yalla wax bayyi li mu téré lah, lah, lah, aljana nitay sangam budul hmm. won nit yalla du bind aljana hmm. kon ñun ñoo upp doole aljana bayilahi alayhi salatu wassalam gëm ko mo dakk aljana billahi wal kitab xawma nak nga baña xam kan moy sayyidina imam ndax dom ju tedd je sayyidina isaru lahi neena kep ko xamni gëm na sama bayyi ni moy muhammad mu waru fas di dawal fas wa mm. ba fasoo sonn bay génn puurit mm. nee na puurit woowee moo gën a foor wàlli wa sës ca yàlla kon ñan ñooy waa kër Seydina Limaamu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif nee waa kër Limaamu mm. bu ñu waajee juma bay dem juma boo dajeek ñoom seen ñaari bët bu ñu dajoo sa yaram alaamal na sawara ah, mu ne bu ñu réeree boo leen wanee aw yoon sa yaram alaamal na sawara bay laay nee na ku ma gëm texe nee na man képp ku ma gëm boo dee ñu lay dugal ci bàmmeel bu dee ñett lay indi maa la ñeenteel maa leen di ñeenteel bu dee ñaar lañu maa leen ñetteel nee bu ñu la dugalee rek sama loxo yi lañu lay teg yaa ngay xippee ile yii na hmm? mu ne sama waa kër aw say lañu maa leen takk te danaa leen càmbar ba ñu set wécc ma jox yàlla ndax du ma jox yàlla lu setul kenn du Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam bàyyi laay mooy Muhammad laaye ni dañoo baax yàllaa leen ko defal nous sommes le peuple élu de Dieu fii la yonent yàlla dellu si Isaa dellu si Moussa dellu si Ibrahima yonent yëpp dañoo dellu si gëm Seydina Limaam moo tax laa ni bu ñuy julli bu ñu jàppee seen oom dañ naan amana billahi wa rasulihi kenn du Seydina Limaam moo puus géej mooy borom moo jisa yi moo randal géej bàyyi laay jàngul bindul kenn gisu koo ki téere jàngul bindul kenn gisu koo ki téere te xam-xam ba cëb dëndam xajul ci téere mhm. ndax mooy Muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mhm. kon alhamdulilah rabbi alamin sant yàlla mhm. laayeen mooy nangu di yàllaa moom ah. mooy laayeen ah. ñun nangu nañ ko nag ndax yàlla li moom yëpp laay la ko santale mm-hmm. moo yónni muhammadu rasululaahi musa kàllaamullaahi mm-hmm. ibrahima xalilullaahi mm-hmm. kaabatullah kitaabullaahi jannatullaahi naarullaahi diine mu ni isaa jaa nasrullaahi wal fath wa rayta naasa yadxuluuna fi diini laahi ah, fa diine ja sante laay dem leen fa jàmma laay la borom aji boo daay laay di maam baay laay macha allah macha allah. loolu mooy la loolu nga bëggoon xam. ah waaw. ah loolu de laa ci xam. boo ci leneen it wax